وصلى الله وسلم على نبي الأمين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah niñ leen ko waxee woon kon incha allah dañu bàyyi imaam rek mu dugg nuyoo ñu commencé laaj yi incha allah barakallahu fiikum bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبوك غروب وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا ينلين يدلين زيارة يب دي جيتل كي nga xamne moy suñu sët serigne cheikh jibril ñu ngi lay maanaam ziar bu baax yow ak képp koo xam ni yaa ngi ci euh, daara yi waqu euh, groupe bu xujjaal xaq wa di leen bëgge bu baax a baax di ñaan yàlla mu sàmm leen euh, suturaal leen yekkeewal leen lépp loo xam ni lu baax la dëppale leen ak xéewal ak ngëneel saxal leen ci jaamu ko ak gëm ko ba keroog yowmal qiyaama di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullah nuyu lu bari lool di rafetal bu baax a baax nag eh, ñëw gi ndax duñu benn waxtaan lu dul rek da nga def dañu ko bëggee ñoo ngi koy rafetal lu bari lool insha allah su ko defee dañuy daadi di rek eh, soobu ci waxtaan bi laaj bi ñu njëkk indi mooy yaa imaam dañoo bëgg nga tënk li ñu rek bu ñu nee njabar mooy lan ci tënk ñu doori ñëw nag ci détail insha allah ndax bu ñu waxee lekk moom nit ñi xam nañu ne mooy tibb di seex ak yooyu bu ñu ne sangu it nit ñi xam nañ ne mooy dem wuti ndox euh, dem ci toilette bi ak yu ni mel léegi nag moom bu ñu ne njabar moom mooy lan ci tënk su ko defee ñuy ñëw ci détails yi ak yooyu barakallahu fiik assalaamu aleykum wa wa barakatuhu cheikh jibril ñu ngi lay ziyaara bu baax cheikh jibril wàllu njabar euh, njabar boo ko dee xam xamle ci wàllu ndaxte arab sixru la koy tudde ak sixru ak sixru lépp loo xam ni dafa dafa dafa nekk lu nëbbu wante nekk lu wayaf te nëbbu loolu ak sixru lañ koy firee ak loo xam ni dafa dafa dafa sew ba kenn mënu koo gis bët mënu koo gis boo ko doon boo ko doon téyeeg loxo da dafay dafa ndax tuutiwaayam ndax sewam loolu sexru ak sexru lañ koy tudde euh, moo tax ak saxaru bi ngay gis saxaru bi ngay dégg njël lu tax nga njël dafa maanaam ci mujjanteelu guddi gi gis nga ni mu ndaxte dafa dafa lëndëm du lu ñuy gis moo tax saxru sixaru foofu lañ foofu lañ foofu da ci dugg xam nga ak saxaru as saxaru euh, mooy njël yàlla nee na najjaynaahum bi saxar euh, benn màdd bi rek ci lañ ci lañ ci lañ jële ak as ndaxte la njël ba nga xamee ni dafa dafa dafa nekk lu lëndëm kenn du ci gis dara ndaxte guddi gi ci lay gën a lëndëme kenn du yëngu kenn def dara lépp day lëbbu foofa lañ jële baatu euh, sixar lu tax ndax dafa nëbbu maanaam dafa saxar heure boobu ak sixar dañoo bokk dañoo bokk dañoo am dañoo am relation moo tax ñu daje ci tour wi moo tax ñu daje ci tour yi heure boobu lu lu nit di def ak loxoor guy def heure boobu la koy def ndax dafa nëbbu bu fekkente nag ci ci wàllu loolu sharia al islamiya euh, maanaam ki dafay dafay seetlu ko ci ñaari ñaari seet maanaam ci ñaari xaj bu njëkk bi mooy bu fekkente ni njabar mooy la njabar daal mooy ay pas-pas ak ay ay pas-pas ak ay léemu bu nee ay léemu nag mooy di jàng ay palaasim ak ay yoo xam du tuur yàlla du tuur dara léeg-léeg sax du nekk arab léeg-léeg sax du nekk ay arab wala bu dee arab da nekk ay baat yu yu yu yu yu jaxasoo ay baat yoo xam ne nekkul baat euh, baatu arab bu leer nañ ñi déedéet nekku ko yeneen la ay yeneen lañuy tudd yoo xam ni euh, turu yàlla néew ci turu jinne la bu ko defee pour euh, jëfandikoo seytaane léegi benn ñu am kuñ kuñ bëgg a ñu bëgg a lor ki nga xam ne dañ koy njabar loraange gi nag mooy wala wala bëgg euh, maanaam daal euh, tàggat ko tasxiir ko ba dootul ba dootul xamati kenn loolu di leen topp wante nag lépp rek day nekk ci euh, ndigalal yàlla maanaam ci kattanu yàlla lay nekke maanaam yàlla dara du génn maanaam dara du génn machi am léegi nag id moo tax yàlla ne wa ma hum bi darrina bi a ah-, bihi min ahadin illa bi idnillah idnullahi maanaam yàlla al idnu dafa am al idnu shar'i ak al ak al idnu al kawni al idnu al kawni mooy lépp lu li ci def même bu fekkente ne lu bon la mënut a nekk lu dul mu nekk bi idnillah moo tax yàlla ne wa ma hum bi darrina bihi min ahadin illa bi iznillah fii iz bi iznillah bi bi ma wax ni mooy euh, al iznul kawni eh, al iznu shar'i nag comme mooy fi yàlla ni euh, qul man kaana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah nazzalahu ala qalbika bi iznillah kooku izn shar'i la kawni la shar'i la kawni la wa maa hum bi daarrina bihi min ahadin illa bi iznillah maanaam njabar nag dara moo xam muy njabar ak lu mënti am nag maanaam yàlla li mu bëgg fi mooy njabar du caagri dafay tëy yàlla daal di am déedéet mënut a nekk lépp rek ci ci soobeelu yàlla maanaam yàlla ci kattanam ci ci ci dogalam lay lay lay amee kon loolu loolu benn la beneen bi mooy euh, ay ay loo xam ni dañ la koy jox nga koy takk wala ñu jox la ko nga koy nga koy nga koy nga koy naan wala nga koy lekk ah ñu jox la loo lekk gis ñu naan dañoo jël njabar bi def ko ci ñam wi mu lekk loolu njabar dana ñëw ci ñaari xaaj yooyu kon léegi eh, bu bu njëkk bi ay pas-pas ak ay ak ay léemu di jàng ay palaasim palaasim mooy ay yu jaxasoo yoo xam ne yoo xam ne du nekkul eh, eh, arab bu bu bu jub nekku ko nekkul arab bu jub ay yu jaxasoo la bu ko defee loolu eh, ci njabarkat bi ci ci lay ci lay sukkandiku pour mën a utiliser seytaane yi loolu loolu taarif njabar beneen beneen taarif bi mooy eh, taban taarif shar'i laay wax ay loo xam dañ la koy jox nit ki dañ ko koy jox rek mu tàqali ko loolu tamit taarif la ci taarifu maanaam ci buñ bëggee xam le njabar kon yaakaar naa euh, Cheikh Jibril ci euh, xam le njabar boobu nag maanaam ci gàttal rek loolu moom euh, loolu mooy njabar ci gàttal ak ci commencement loo xam ni mën nañ koo xam ci njabar njabar bu ko defee nag daal di soog dugg nag ci ay détails ak ay yeneeni aqsaam xaaju njabar yan la wante lii daal moom moom moo tënk li nga xam ne moo moom mooy njabar wallahu aalam macha allah yaa imam euh, bala ñoo yéggali ndéggal li ci suuf ñu dugal ñaareelu laaj bi incha allah ak tënk bi nga xam ne tënk nga ko mu am solo lool lool sax nag yaa imam euh, bëgg nañoo ak leeral tuuti rek ci aaya bi borom bi doon wax ak yonent yàlla suleyman alayhi salaam naan suleymaan kat njabaru toon moom nañ ko génn ci mbir yi a shayatina kafaru yuallimuuna annaasa sihra bëgg nañoo xam naa ndax jamonoy suleymaan ak njabar daa amoon ak nan la demee woon ak ndax daa amoon jamono yooyu ñoo xam ne ay jullit lañu woon daal njabar wala déet bëgg ñoo xam daal naka nga ñuy jàngale te aay boobu insha allah ah, waaw ah, sëñ Jibril euh, wàllu suleymaan ak njabarkat yi yàlla dafa ni walamma jaahum rasulun min indillah musaddiqun lima maahum nabada fariqun min alladina utu lkitaba kitaaba allahi waraa zuhurihim ka annahum la yaclamuun wattabacuu ma tatlu alshayatinu ala mulki suleymaan yàlla dafa ni bi nga xam ne ni bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yónni na ko jóge ci yàlla te bim ñëwee di dëggal li nga xam ni moo ko jiitu ci te mooy tawraat aw tawraat ak injil yépp léegi juif dafa dafa dafa am ay nit ci ci juif am na xam ne tuub nañ ko ci ñoom Abdullah ibn Salaam ak ñu mel ne ñoom ñu mel ne moom wante mu am ci kuréel boo xam ni dañoo mel ne alquran ji jànguñu ko maanaam jànguñu ko moom ci alquran waaye xam nañ ko dafa mel la xamuñu ko tawraat xamal na leen alquran alkarim léegi nag bi alquran ñëwee ka annahum la mel la xamuñu ko fekk ñoom ñoom ñi xamal na leen alquran ji lépp waaye ñu sànni loolu seen gannaaw léegi nag au lieu ñu euh, jël alquran ji wante ñu dem topp nja euh, euh, la nga xam ni moom la seytaane yi doon jëfandikoo ca nguuru Suleymaan léegi nag yàlla ni juif yi wattabau ma tatlu shayatinu juif yi au lieu ñu topp alquran karim ñëw tuub wante déedéet déedéet dañoo dem toppi la nga xam ni moom la seytaane yi doon def ca nguur Souleymane léegi nag ala mulki Souleymane ala boobu bi maanaa fii fii mulki Souleymane bi maanaa fii la léegi fii léeg dafay ñëw nekk bi maanaa ala ala day ñëw léeg nekk bi maanaa fii fii moom euh, ala moo ñëw nekk euh, bi fii ala mulki ay fii mulki am na feneen foo xam ni tamit euh, fii moo fa ala moo fa waroon maanaam yàlla indi fa fii mooy euh, walaw usallibannakum fi juzui naxli ay ala juzui naxl loolu lépp balaaxatul quran moo koy waral léegi nag euh, yàlla ni juif yi dañoo topp la nga xam ni seytaane yi ñoo ko doon jàng ci ay njabar ca nguurug Suleymaan léegi nag lu tax yàlla ni wa maa kafara Suleymaan Suleymaan Euh, nguuram dafa nekkoon nguur gu yéeme ba jaaxal jinne yi ak seytaane yi ndax seyt ndax ndax Suleymaan moo ñaanoon yàlla mu may mu may ko nguur goo xam ni keneen du ko amati ci gannaawam du yell ci kenn nit mu koy amati muy rabbi habli mulkan laa yambagi li ahadin min baadi innaka anta alwahaab yàlla may ko nguur gu yéeme bokk na ci li gën a yéeme ci nguuram mooy ngelaw li ko yàlla tàggatal nga xam ni moo jinne yeeg li nguuram gàngooram lépp ngelaw li da leen di jël yóbbu di yóbbu Suleymaan fu ko neex ci àddina bi fu ko neex ci àddina bi te te ngelaw li bu dee bay teer day teer teer bu teer bu woyof teer bu day tag tag bu moo tax yàlla ni fa saxarnaa lahu riixa tajri bi amrihi ruxaan ruuxa an xaytu asaab maanaam buy buy taxaw buy teer di atterrir day atterrir bu lu lu maanaam ci lu woyof a woyof bu woyof bu noof bu ànd ak noof laay nga xam ni doo ko yëg sax nag rëng-rëng yi amul dara amul nguurug Suleymaan yàlla tàggatal ko jinne yeeg nit ñeeg lépp njanaaw yeeg muy dégg waxu njanaaw yi Suleymaan lim amoon kenn amu ko nag jinne yi gannaaw Suleymaan jinneeg seytaane yi daal di def ci bopp nit ñi daal ni Suleymaan da leen daan njabar daal di génne benn mbir di benn benn mbir te euh, euh, génne ab jaaro ne jaaro bi ci leen daan jabar Suleymaan lii ci leen daan jabar loolu boobaa boobaa dafa dafay neex a gëm dafa amul koy défendre ci loolu ku leen maanaam ku koy weddi ku naa ku indi ay preuve ni Souleymane daawu leen ñoom yonentug Souleymane yàlla nguur gi mu may Souleymane xam nga ñun bu yàlla subhanahu bu ñu nettaliwuloon nguuru Souleymane yonent bi nettaliwuñ ko kon bu jinne yi di seytaane yi bu def ko ci xelu nit ñi ni Souleymane daf daan jabar kon ñun dina dina dina nekk ci ñun lool kon duñu am jënduwaay duñ am fu ñu génn tax ndax nguuru Souleymane ni mu ni mu ni mu woon ak ni mu tàggati ak jinne yi ni mu leen doon noote gannaaw li mba jabaru leen waaye nag alhamdulillahi rabbil alamin yàlla daf ñu ko leeralal ci alquran daan ni wama kafara Souleymane allahu akbar ma kafara Souleymane Souleymane weddiwul Souleymane mësu sa topp njabar maanaam kon gis nga yàlla moo jëkk a défendre Souleymane la jinne yi seytaan doon wax dañuy fenn seytaan jin seyt suleymaan mësuta njabar wa kafara suleymaan loolu moo lay wan ni kon njabar kufru la au lieu au lieu yàlla ni wa maa saxara suleymaan wante dafa ni wa kafara suleymaan loolu ngir ngir wan ñu ni njabar kufru la kan kan moo weddi kan moo njabar walakinna shayatina kafaru kon gis nga mooy walaakinna shayaatiina saxar shayaatiin seytaan yi ñoom ñoo njabar xam nga walaakinna shayaatiina seytaane seytaane jullit amul seytaane ñëpp ay ju ay yéeféer lañ kon léegi lu tax yàlla ni walaakinna shayaatiina kafaru moo lay wan ni kafaru li muy firi foofu mooy say seytaane yi dañu ñoom ñoo njabar ba pare yuallimuuna di njabar jàngal nit ñi njabar. macha allah ya sayidi al xam naa ndéggal lee a gudd bala ñu koy yeggali ñu dugalaat eh, ñetteelu laaj bi insha allah yaa imaam bii nag ci yonte yàlla Muusa la alayhi salaam moom kat daa mel ni aw nitam dañoo amoon ak njaaxle gannaaw bañ ko sàkkoo ci moom yàlla digal ko na wax aw nitam ne nañu rey aw nag mu di leen di tegtal nag wi na mel sàngam ak sàngam ak sàngam ndax léegi al ax jibril moom bu doon def dara ndax kon rek mën naa sukkandiku ca loola daal di wax mbay wàdd ne ko yow bala ngaa mën a takk soxna faaw nga génne aw nag wu weex te nag wu weex bi na nekk nag wu ndaw te na nga ko rendi bisu samedi tegtaloo daal ci aaya boobu ndax loolu mën na nekk walla déet ak aaya boobu timit naka nga ñu koy jàngalee ba nga xamante ni bii danañu gën a jege barakallahu fiik di jàngal nit di jàngal nit ñi wa unzila ala al malakayni ak la nga xam ni moom lañu ñu wàccee ca ñaari malaaka ya léegi nag qissatu haarut ak maarut nan la demee léegi am na bu ñu indi ñu ni daal ñaari malaaka yi ba ñu gisee Euh, doomu aadama doomu aadama yi mooy gi ñuy mooy yàlla ëpp lool bari lool ëpp lool ñoom ñu yéem mala maanaam malaaka yi loolu yéem leen mu mel ne lu ñuy tawat la doomu aadama yi seen mooy ëpp na yàlla ni leen li ma def ci ñoom ci wàllu xarisa nga xam ni plaisir bu ma ko defoon ci yéen ngeen def liñ def maanaam ngeen def liñ nekk malaaka yi nag daañu yàlla ñun duñ la mooy ba mukk nee yàlla ni leen tànn leen ñaar ci yéen ma sol leen plaisir bi ma sol euh, doomu aadama yi ñu tànn haarut ak maarut nga xam ne bokk nañ ci ñi ci gën a kawe ñu tànn leen yàlla jox leen lim jox doomu aadama wàccee leen fii nag wàccee leen ci suuf ñuy jàngal euh, doom maanaam ñuy atte ñuy atte buñ dee buñ attee ba tes maanaam buñ attee ba ba ngoon da dañ am na baat bu ñuy wax daal di daal di daal dem euh, daal di yéeg am na baat bu ñuy wax daal di yéeg léegi noona mu am benn bis ñuy àtte mu am kenn ku jigéen ku rafet a rafet ku rafet lool léegi bañ gis comme yàlla def ñoom plaisir bañ gisee ku jigéen ki rek ñu daal di tàqali ko seen sago nag ñu tàqali maanaam ñu bëgg ko lool bëgg ko lool bëgg ko ba ba ba mbëggeel googu yóbbu seen xel seen maanaam daal ñu am ci moom mbëggeel ba loolu xawlee na xawlee na noot tuuti léegi euh, ku jigéen ka euh, sàkku ci maanaam ñoom ñu so benn bis ñu ñu sàkk ko ñu sàkku ndaw si ndaw si ñu leen nag duma d'accord ak yéen lu dul euh, ngeen naan sàngara ba pare ñu ñu naan sàngara ñu bëgg ànd ak ndaw si comme am nañ plaisir ndaw si ni déedéet fekk kon joxu leen ma tur bi ngeen xam ni moom ngeen di wax rek tour maanaam tur yàlla bi nga xam ni moom ngeen di wax bu ko defee ngeen daal di yéeg ca kaw boobu laa bëgg ngeen jox ma ko bu ko defee ma ma soog a d'accord ak yéen ñu jox ko ko rek ndaw si daal euh, wax lool rek daal di daal di daal daal di yéeg ca kaw daal yéeg kaw nekk ak biddéew léegi léegi nag ñu mooy en tout cas mooy nañ yàlla mooy giñ mooy yàlla nag yàlla ne leen nag tànn leen nag mbugal fii ba àllaaxira wala wala bu dul looloo bu àllaaxira ma dugal leen safara maam daal xissa la boo xam ni euh, dara wéru ci israili maam ci israiliyaat yi nga xam ni dara dara dara wéru ci am nag mufassiru yi ñu ba ñu ñu ci bari indi nañ ko wante dara wéru ci kenn du ko wéral sanad bi laa yasixu laa tasixu laa sanadan wala matn yax bi ci boppam wérul cëslaay gi dara wéru ci amul sax cëslaay asalan gu wér ndax malaaka yàlla mi ngi ko bindi ci leer yàlla moo wax ci alquran daani laa yaasuuna allaha maa amarahum kon léegi nan la ñuy na na na na laa yaasuuna allah ndax mala malaaka ay malaaka lañ ak nu mu mën a demee malaaka dafa bokk ci dogal yàlla di malaaka nekkul kuy mooy yàlla jeex na maanaam malaaka du kuy mooy yàlla noonu la ko yàlla bind kon mënut a nekk malaaka mi di mooy ba ba ba ba yàlla di ko mbugal ba ba nar ko yóbbu safara loolu mënut nekk kon wax jooju dara du ci dafa dëng te wérul li am mooy lan li am mooy ñaari malaaka yooyu bi nga xamee ni seytaane yi def nañ ci xelu nit ñi leen Suleymaan daf leen daan jabar yàlla défendre Suleymaan ni leen wamaa kafara Suleymaan Suleymaan musta weddi musta njabar walakinna shayatina kafaru seytaane yi ñoo weddi maanaam ñoom ñooy njabar yuallimuuna naasa sixra ñoom ñooy jàngal nit ñi njabar wa ma unzila ala almalakayni ak la ñu wàccee ñaari malaaka yi léegi nag maa gi maa gi nekk ci wa maa unzila alal malakayni am na ñu ko def ma naafiya maanaam wa maa unzila alal malakayni wàcceewuñu ci dara maanaam wàcceewuñu dara ci ñaari malaaka yi wante loolu wax jooju day dëng wax jooju day dëng ndaxte wa maa yuallimaani min ahadin xatta yaqula innama nahnu fitna kon moo lay wan ni na am na lu ñu am na lu ñu wàcce ci ñoom kon maa gi mënta nekk euh, mënta nekk maanaa fiyel maa mawsuliya la maanaam mooy ak ay allazi unzila ala malakayni ak la nga xam ni wàccee nañ ko ci ñaari malaaka yi bi baabil baabil ab place la ca iraq ca maanaam ñaari malaaka yi nga xam ni ñoo nekkoon ca baabil ca iraq léegi ñaari malaaka yooyu yàlla da leen a wàccee pour ñuy jàngale njabar ngir xamal nit ñi gravité njabar ngir ñu ngir ñu ràññee lan mooy njabar ak lan mooy yonent ga Suleymaan yoroon ngir ñu ràññee ko moo tax yàlla ni wala wa ma unzila ala al malakayni bi baabila haaruta wa maarut wa ma yuallimaani min ahadin xatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur ñoom ñaar ñaari malaaka yooyu du ñu jàngal kenn nag feeg waxuñu ko ñu ko ah ñun ay fitna lañ bul weddi kon malaaka yi ñi ngi def seen liggéey loolu moo lay wan ni ku jàng njabar ku nekk fit fitna nga ñun ko ah, ñoom ñaar ñi ah ay fitna lañ de te lii lu bona bona bon la fitna la te boo ko defee da nga weddi mën nañ laa jàngal nag bu ko defee nga ni aha kon lii lu bon la kon lii ak kéeféer la kon ndeke yonent yàlla Suleymaan lam indi woon ak yonante la du ak du woon ak du ak kon ñun léegi ñoom kuñ wax ni ñun fi ay fitna lañ bul weddi nga daal di bàyyiwaat kon ñoom ñi ngi leeral nit ñi mooy njabar ak lan mooy la fi Suleymaan bàyyi woon yaa ngi dégg moo tax yàlla fa yataxallamuuna maa minhuma maa yufarriquuna bihi bayna mar'i wa zawjihi maanaam nit ñi di jànge ci ñoom loo xam ni mën nañ cee tàqale diggante nit ak soxnaam waaye nag yàlla yàlla daal di leeral fi benn mbir mu am solo daal ni wa ma hum bi darrina bihi min ahadin illa bi idnillah na ngeen xam loolu te nag waaye nag ñoom loolee ñuy jàng di ci di ci di ci tàqalee di ñaari ñaari way dencante mënu ñoo mënu ñoo lor kenn lu dul ci ndigalal yàlla ndigal gii laa wax idin kaw nii la maanaam ñoom du du jàgg ne dañuy tëj lu yàlla neexul loo xam ne neexul yàlla muy muy am loolu munta nekk même bu nit ki toogee daal di naan sàngara sax loolu dafa neex yàlla mu am dogal la loolu yàlla yàlla ndax yàlla mooy borom doole ji mooy borom kàttan mooy mooy lépp lu am ci dogal ci dogalam la amee loolu foofu laa bëgg a wax léegi nag wa yataallamuuna maa yadurruhum wala yanfauhum ñoom ñuy jàng loo xam ni loolu moo lay wan ni xoola pare li li aaya bi lim ñuy xaral premièrement njabar ak kéeféer la deuxièmement njabar du du lor kenn kenn lu dul ci ndigal yàlla troisièmement ñoom lañuy jàng daf leen di lor wante du leen jariñ daf leen di lor wante du leen jariñ wala qad alimu yàlla nee na waaye ñoom ñoom xam nañ laman ishtaraahu ñoom ñi jàng njabar njabarkat képp koo xam ne génne nga njabar génne jël nga njabar joxe ko maanaam mooy nga dem jàngi njabar jël njabar koo xam ne dangaa jënd njabar joxe tawxid jënd jabar maa lahu fi l axirati min xalaaq al'axira du fa am benn cër wala bi sa ma charo bihi anfusahum law kaanu yàlla la ñu seen bopp moo bon bu fekkonte ni xam nañu kon léegi li ñuy aay bii ñu wax léegi lañ ci jànge mooy malaaka yi yàlla def leen a wàccee ngir ñu xamal nit premièrement malaaka xam nga juif yi lañ euh, dañoo topp la nga xam ni jin seytaane yi ñoom ñoo ko doon jàng ca ñoom ñoo ko doon topp di ko jàng ak di ko tasaare ci euh, nguuru Suleymaan léegi te yàlla daan nag xam leen ni Suleymaan mustawed ndax ñoom dañu Suleymaan ndekete yow Suleymaan daf daan utiliser lii la Suleymaan daan utiliser parce que damaa wax njaa jaaru léegi am na lu am na ab njabar la la la seytaane bi suul ci fa Souleymane daan toog bam mu ñëwee sulli ko nag daan ni lii la leen Souleymane daan eh, Souleymane njabar gii la doon utiliser moo tax mu nootoon ñu nootoon lépp xam nga kon loolu dil bu seytaane yi def la pour bëgg pour bëgg a saxal ak njabar daan ni Souleymane ci lii la la la leen noote woon yàlla bëgg ñëw bëgg yàlla ñëw di dajji loolu daan di wamaa kafara Souleymane ñoom dañuy fen seytaane yi Souleymane mustaweddi mustanjabar Suleymaan mustanjabar léegi nag yàlla daa di wàccee ñaari malaaka ngir leeral lan mooy njabar ak daasig njabar ak tamit lan mooy maanaam daasig njabar boo xamee rek kon nga xam ni Suleymaan doo doowuloon da nekkuloon boobu nit en tout njabar la moo doon rôlu malaaka yi ñu wàccee bi ñu wàccee ci baab yi waaw euh, comme li nga laaj léegi nii comme fi yàlla di waxe di ñu nettal ci yonent yàlla Muusa wa id qaala Muusa li qawmihi inna allaha yamurukum an tadbaxu baqara qaalu atattaxiduna huzwa qaala audu billahi an akuna min aljahilin euh, qissa bi amul benn relation ak li nga laaj amuñu relation kii moom njabarkat bi da lay fekk da koy fekk ni ko man kat damaa bëgg sama soxna sii bëgg ma wala damaa bëgg eh, sama wujj wi tàqalikoo sama jëkkër wala damaa bëgg kii sama doom wujj wii na dof wala sama kii na sa noon bii na dof mu la demal nga jël eh, eh, mu la demal nga jël nag na nag wu ñuul nga rey ko boo ko reyee saam ko boo ko saamee def ko loolu jinne yi ñoom ñoo ko digle loolu jinne yi ñoo ko digle kii nag yàllaa ko digle Moussa dafa ne inna allaha yamurukum waaw léegi su jootal nit est-ce que est-ce wante pourtant su jootal aadama pourtant su jootal aadama ñàkk su aadama la yàlla la yàlla mere iblis ba ba ba ba toroxal ko de yàlla ne sujjóotal leen aadama bu yàlla ne sujjóotal leen aadama yow sa yóon newatu ci bu ma yàlla ni woon sujjóotalal euh, ak jibril fokk damay dama la dama lay sujjóotal sama yóon newul ci yow waaye man sa sa sujjóot ma lay sujjóotal comme yàllaa ma ko wax rek jeex na man kon jamoo ko dama koy jaamoo yàlla yàlla Moussa moo ni waa bani Israil inna allaha yamurukum yaxi le al aya waadiha inna allaha yamurukum njabarkat yi nag lee ñuy def di rey ay nag jinne yi ñoo leen ko digal ashaytaanu ta'muruhum jinne yi ñoo naa leen rey leen nag buñ koy rey duñ ko duñ tudd yàlla sax euh, sut nag nag wu ñuul ndaxte ji jinne dafa bëgg lu ñuul ak lu mën a mel bu ngeen ko reyee ngeen saam ko téeméeri saam saam bu ci nekk bu ngeen ko digal loolu min taalimaati shayatin shayatin ñoo ko ñoo ko def ci seen njabarkat yi ñoom ñoo leen koy jox jinne yi la jinne ji nag noonu mu ko waxee noonu nga koy defee bu ko defee nag loo bëgg mu defal la ko loolu sixrun bi aynihi sixrun bi aynihi la shakk sixru la la amul benn relation ak ak ak ak euh, koy xeet demal nga rey euh, nagu ñuul boo ko reyee loolu loolu dafa bokk ci xeeti njabar yi kooku tariqa la min min min turuqi min turuqi sixr waaye nag léeg nga gis ku ñëw rey saxaba bu séddale yàpp wi loolu dara néew ci wante rey yu baree baree bari jinne yi ñoom ñoo koy digle surtout nag bu fekkente ni da ngay xar ba xar mi da koy am da nga koy préciser xaru bu ñuul wala nag wu ñuul wala nag wu def lii bu ma ko lekk bu ma ko reyee saam yi naa ko saam loolu dafa bokk ci xeetu njabar mu leen nañ kooku yàlla diglewu ko seytaane ko digle Moussa alayhi salaam lam doon def ci nag wow ñu doon ci loola yàllaa ko dig yàllaa ko digle ak luñ mën def comme ci ndigal yàlla rek luñ mën a def loolu ba pare loolu maanaam xaas bi Moussa dafa nekk amr tawqifi foofu kenn du laaj lu tax laa yusalu amma yafal yàlla moo digle jeex na limaada lu tax ndaxte ndigal yàlla la mu jeex tàkk boo nee lu tax Moussa di wax ay nitam ni leen eh, rey leen rey leen nag bu ngeen rey bu ngeen rey ñu ni ko léegi nag bi ñu rey bam nag mu ni ko nag nag wow daal du nekk nagu eh, ndaw aw sël du nekk nagu màggat bu digg doomu la léegi nag lu mel mu ni ñu ni ko nag nag yi day jaune jaune jaune lool nag jaune bu rafet nag nga xam ko xool bi ñu ni ko léegi nag boobu daal ba léegi des na parce que nag yi dañoo nuroo ba loolu loolu ñu lépp Moussa di leen jox melokaan yooyu lépp ci ndigal la ba pare banu Israil ñoom ñoo moo tax laaj baaxul yàlla dafa ne inna allaha yamurukum an tasbaxu baqara jeex na yàlla de digal na leen nee na ngeen rey aw nag jeex na ñoom te ngeen def rey nag baqaratan nakira la inna allaha yamurukum an tasbaxu baqaratan loolu nag rey nag bu ngeen rey baax léegi nag ñu bëgg a ñëw tasdiq daal di lamma shaddadu ala anfusihim shaddada allahu alayhim bañ ñëwee ñu daal di teeŋal seen bopp yàlla teeŋal leen daal di ma udu lana rabbaka yubayyin lana maa hiya ñu commencé nag ñoom ak luñ gën a teeŋal yàlla di yàlla di leen gën a teeŋalal luñ gën a teeŋal yàlla surtout nag biñ ne nagu mel nan yàlla leen safraau faaqia lawnuha tasuru naadirin xam nga loolu dafa ne foo jëlee nag woowu loolu yàllaa koy digalal boppam xanaa bu ko yàlla digal ak léegi ana ana kan mooy dikk daan yàlla yàlla digal na bu fekkonte ne yonent ab yonent moo fi nekk ba léegi ab yonent fi nekk ba léegi yonent bi moo fi nekkoon ba léegi nii nii daan yàlla digal ni ñu def naagam lañu yàlla digal yàlla digal na demal nga rey nag te nag wa ngay rey nangam loolee loolee jaamu yàlla la tudd ndaxte ndigal la gu jóge ca yàlla yaa ngi dégg nag yi ñuy rey nag di ko rey at léeg nga gis nag wu ñuul kuk ñu rey ko suur su suur yàpp yi ak yooyu loolu lépp min amali shayatin min awamiri wa taalimati ashaytan kooku leer nañ ci jàngale seytaane la bokk sixr la mu leer nañ. macha allah tabaarakallah imaam am na solo lool de xam naa dañuy dugalaat beneen laaj bala ñooy euh, diglu ndéggat li yent yàlla Muusa alayhi salaam moom it bi mu demee ca firawna euh, mbokki firawna yi di defar ay njabar di sànni ay buum mu nekk jaan Muusa tamit ñu ne ko yow tamit sànnil mu sànni mu nekk jaan loolu tamit est-ce que nit du ci sukkandiku daal di wax ne ah njabarkat njabar yi kat mën nañoo def loo xam ne day jeexil ci nit wala euh, diggante boobu noo ñu koy jàngalee diggante bi nga xam ne daal am na ci njabarkat yeeg Moussa alayhi su ko defee nag gannaaw bi nga tontee laaj bi ñu dem ci sunna am fa ñaari laaj doore ñëw nag ci fee yi nga xam ne mi ngi am ci Sénégal incha allah ndax euh, bëgguñu ko topp aay yi wax ci njabar yépp kon dañ fi am fan yu bëree bëri dañuy mos fii rek mos fale daal di ñëw ci ni ñuy dundee ñun Sénégal sunu diggante euh, Mbaye Wade mi fi nekk euh, di def njabar gu metti ñu am foofu it ay laaj balaa euh, jotaay bi di jeex insha allah barakallahu fiik waaw Cheikh Jibril beneen bi mooy ñun yàlla yàlla topp topploowuñu yent yàlla Moussa ak sharia am yàlla kim ñu topploo mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak shariam wa ma aataakum rasulu fa xuduuhu wa ma nahaakum anhu fantahu yonent yàlla Musaa fuuf moom la ñu yàlla topploo shariatu muhammad ak sharia al muhammadiya la ñu yàlla topploo bu ñu jël nag ci yonent yàlla Musaa def ñun su buñ bëggee def suñ jabaru bopp di jël prétexte yàlla musa loolu bokkul wàllu yeneen ci yàlla Moussa nja amoon ci euh, bi yeneen ci yàlla euh, ak euh, ñoom ci teewaayu Firawna boo seetloo ni ñu ko yàlla nettale ñoom lañu yar la yor njabar la ñoom la ñu yor njabar la de ñoom la ñu yor njabar la yonent yàlla Moussa li mu la jaanu maanaam yatu yonent yàlla Moussa Moussa bi ba mu ko sànnee loola moom jaan xaqiqi la te ko jegewoon dañ la mat la te ko jegewoon dañ mat jaan la bu leer naññi moo tax ñu ni moo tax ñu ni loo xam ni lu loo xam ni mbindeef boo xam ni amul papa amul yaay amul dara mbindeef boo xam ni amul papa amul yaay te mbindeef la mooy ja jaanu yonte yàlla Musaa amul papa amul yaay te mbindeef la ak ak ndundat la mooy jaan la gu leer naññi la la nit la la la la euh, nitu firawna yi am njabarkat yooyu la ñu yor du dara moo tax yàlla daani euh, fa fa fa fa fa ida xibaaluhum wa isiyuhum yuxayalu ilayhi min sixrihim xam nga yàlla newul fa ida xayaatuhum wa saabinuhum wa saabinuhum wa saabinuhum waxul loolu dafa ni fa ida xibaaluhum seen seen seen buum ya wa isiyuhum ak seen yat ya yuxayalu ilayhi bi min sihrihim annaha tasaa Moussa dañ koo def li naan sixru taxyil maanaam dañ koo def maanaam muy imaginer ku leen gis da ngay daan ni yii kat dafay dox ndeke doxul moo tax yàlla yu xayyalu ilayhi bu ko defee ñuy imaginer ñuy ima muy mu mu ñuy def benn loo xam ni dafa mel ne day am jëmm ak am lu ñuy wan yent yàlla Moussa am mu mel ne dafa am lu muy janeer ñu koy janeeral mu mel luy muy la muy gis min sihrihim te jóge ci seen njabar googu annaha tasaa ni moom dafay dox mu mel ne jaa mu mel ne buum yi ak yet yi dafay dox nekk nekke doxul imagination boobu nag loolu la ñuy wax sixru taxyiil loolu mu def loolu mu def nañ ko ci Moussa léegi nag Moussa daa di xaw a tiit ndaxte lu tax ndaxte dañoo dañoo dañ koo njabar gi njabar gi foofu taxyiil googu Moussa yëg na ko ndax Moussa gis na mu bi mu ko lu tax Moussa tiit ndax dafa jàpp ni ñii dafa yaakaar ni ñii ay jaam la lu tax mu yaakaar ko parce que dañ ko def njabaru taxyiil an fa awja yàlla da qul naa laa fa awjasa fi nafsi xiifata Muusa qul naa laa taxaf yàlla ni Muusa laa taxaf innaka antal aala yow Muusa yow yaay ki yaa leen gën a kawe fuuf li nga yor mooy dëgg wa alqi maa fi yaminika talqaf ma sanau sànni li ci sa ndeyjoor bu ko defee loolu dina wan la ñu defar foofu laa bëgg a wax la ñu defar gis nga la ñu defar innama sanau kaydu saaxir ñoom la defar pexem njabar dong du tus du dara amul xaqiqa dara amu ci ay buum la buum la boo ko téye buum lay doon innama sanau kaydu saaxir wala yuflixu saaxiru xaysu ataa njabarkat du mës a texe du ci fii du ci àddina du ci àllaaxira du ci àddina bi du maanaam du texe mooy du du réussir du ci àddina bi du ci àllaaxira léegi nag wala yuflixu saaxiru xaytu ata yaa leen mën fuuf ñii liñ yor du dara duñu dem fenn loolu mooy lan kon gis nga Moussa lam yor du njabar Moussa lam yor xaqiqa la sharia la ay ay ndigal lu jóge ca yàlla la tawxiid la la preuve mooy lan mooy ba nee nañu ci ci ci nee ma matoon nañ ñetti téeméer yett yonent yàlla Moussa yàlla soppi ko muy jaan dëgg daal di lekk lépp wan sax la ko def lekk ko waaye da ko wan dafa wan yëpp dafa ñuy gis lu tax loolu ndaxte innama sanau kaydu saaxir ndaxte mbirum njabar la def mbir njabar na moom mënoo ko tëkkale tawxiid njabar du njabar du am doole mukk ci kanamu tawxiid munta nekk njabar du am dara ci kanamu tawxiid taxyil boobu yàlla def yàlla def ci loolu jëf-jëf yàlla subhaanahu wa taala yàlla moo defee noonu yàlla moo defee noonu pour euh, Moussa tiit yaa ngi dégg tiitaange googu amul leen lu muy lu muy wàññi ci Moussa yàlla ni Moussa bul tiit bul tiit ko Moussa daal del si wat yo yatam bi mu yor mu sànni ko ba mu ko sànni yar daal nekk jaan ci saa si daa di lekk daa daa di wan yëf nekkoon yëpp kon Moussa moom lam yoroon leer na nañ benn subha amu ci amul lu ci nuroog njabar lépp tawxiid la mu leer nañ yàlla nee na ko innaka antal aala innaka antal aala wa alqi ma fi yaminik talqaf ma sanau am na ci beneen aaya yàlla nee na eh, beneen aaya yàlla wa awxayna ila Muusa an alqi asaaka fa ida hiya talqaf ma yafikuun wala ma yafikuun wa waqaa alxaq fa waqaa alxaqu wa fa gulibuu hunaalika wanqalabuu saaxir wa waqaa fa waqaa alxaqu wa batala ma kaanu yacmaluun dégg nga fa waqaa alxaqu dëgg gi daal di ñëw daal di daal mooy li li mooy li li Moussa wa bapala mu daal di neen daal di sob daal di yàqu daal lan maakaanu ya lañu la nekkoon di ko def di ko defa kon lan lan nekkoon di ko def di ko liggéey ci wàllu njabar maakaan wabata wabatal maaka ñu am fa xulibu hunaalika ñu not leen foofu nag wanqalabu saaxirin ñu daal di dellu di way torox léegi nag ci torox torox tànge googu ñu torox nag ñu sooy daal di perte léegi nag la leen sauvé mooy dañoo mooy wa ulqiya saharatu sajidin qaalu amanna bi rabbil alamin firawna yaakaar ni moom lay wax ñu ni rabbi Moussa wa Haarun kon gis nga ñoom euh, xam nañ ni ay njàpp ay yu bon rek la nekkoon moo tax bi bi leen muus firawna menacé ñu leen dama leen di rey ñu ne ko lan nu'siraka ala ma jaana wala min albayinati walladi fatarana faqdi ma anta qaad innama taqdi hadihi alxayata addunya inna amanna bi rabbina liyaghfira lana xataayana wa ma akrahtana wa ma akrahtana alayhi min alsixri wallahu xayrun wa abqa kon gis nga ba ñu ba ñu ñëwee ci yent yàlla Moussa kon ca bañ xëyee suba ay njabarkat lañ ba ñu ca ngoon sa ba ba ñoom ca ba sa ñu nekk ay nitu yàlla ba ñu leen reyee nag ñu daal di dem àjjana la ñu fanaan baarakallahu fiika ya sayid imam rafetal nañ tontu bu baax a baax a baax macha allah léegi dañu daal di ñëw ci sunna am ci ñaari laaj dañoo nettali ñu ne yonentu alayhi salaatu wasalaam daa wax ne man ata arrafan aw kaahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alayhi wa alihi loolu daal bëgg nañ ci xam euh, naka nga ñuy firile wax jooju noonu insha allah barakallahu fiik xadis euh, bi nga wax Cheikh Jibril euh, bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax te moom xadis boobu mi ngi ci euh, saxiix Buxaari Muslim yëpp ñoo ko solo muy xadis bu wér man ataa kaahinan aw arraafan fa saddaqahu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam laaj maanaam xëy na diggante kaahin ak arraaf ak saaxir yaakaar naa ni wàññiwul dara ñu wax ko alkaahin léeg-léeg dana nekk al ar dana nekk as bi léeg-léeg mu nekk kaahin kaahin bi léeg-léeg mu nekk saaxir kaahin bi ak arraaf bi daanaka ñoo bokk ay mbir tuuti la leen la maanaam seen seen seen différence bariwul bu fekkente ne da réer la dara ñu naan nan dem ca géndal ga nan dem ca bee réer la naa dañ ma kan la ma daat dem ca euh, ca géndal ga ñu naan dem ca benn waay pour mu wax pour pour laaj ko ko kooku kooku arraf la kooku nag ku ca dem yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ku ca dem laaj ko mu laaj la nga dëggal ko man Muhammad li ñu wàccee ci man moom gëmatoo ko loolu yonent bi ale loolu xadis waadix jiddan kenn yonent bi xadis moom daanaka muttafaq alayhi Buxaari Muslim ñoo solo maanaam koo xam ni dafa dem ci ab kaahin walla mu dem ci arraaf laaj ko mu gëm mu gëm ko ndaxte kaahin ak arraaf daanaka ñoo bokki mbir kaahin dafa nekk koo xam ni moom bis bu nekk euh, kaahin bi ak arraaf bi kaahin bi mooy koo xam ni daf lay wax lii ñëw yi dogal yi ñëw maanaam yi toujours toujours moom moom li li euh, loo lii bëgg a ñëw la lay wax kooku kaahin la bu xaaba mi dalay wax lii bëgg a ñëw kooku foo ko fekk bu xaaba la léeg-léeg tamit bu xaaba mën na léeg-léeg mu wax ci Eh, mbir yu passé wante bariwul kooku daanaka arraf la la la lay gën nekk wante li li gën a bari mooy mooy kaahin bi moom mooy mooy ñi nga xam ni eh, jinne yi ñi nga xam dañuy ñëw di leen di leen jox di jëli dogal yi daan leen daan jël dogal di leen ko jox bu ko defee ñuy ñuy wax nit ñi naan ni nangam dana xew nangam dana xew nangam dana loolu ay koxaan lañu ñooy ñooñu kaahin njabarkat yi nag gis na njabar moom ci la nekkoon di wax bokkul ak bokkul ak ñoom bokkul ak ñoom wante bi dana nekk di njabar damal nga rey nangam damal nga am na lu am na njabar bu ñuy wax a sixru sufli ak sixru sufli am ak njabar bu ñuy wax ak ak sixru najaata ak sixru sufli mooy di jël euh, moo gën a bon ci ci façon njabar yi mooy yoo xam ne jël alquran euh, alquran jël ko di ko di ko di di di ci def ay yu yu bona bona bon di ko dugal ci douche yi di ko dugal ci bon euh, euh, ak sixru najaas yi najaas yi ak sixru najaas yi mooy euh, njabar boo xam ni dangay nit ki day jël maanaam ngeen baal ma ngantu jigéen deretu mbërëku jigéen wala règle di ko jël di ko bindee alquran loolu lépp ak di ci boole ay palaasim ak ay xeer mooy jàng palaasim yu bon yooyu shirkiya loo xam ne ay ay ay ay uh, maqaalaat shirkiya kalimaat shirkiya yoo xam ne njabar uh, bokkaale la di ko ci jànge loolu lu mu bëgg jinne ji defal ko loolu njabar la mu leer nañ wante kaahin bi mooy mooy li ma la wax moom daf lay nett lii bëgg a ñëw arax bi nag da ñëw mu nett la sama dara daa réer wala yu mel noonu mu naan la kee ko jël wala kee ko jël ma nga fee yooyu ki bi nee na ku ca dem mu wax la nga dégg nga nga gëm laa wax de mu wax la nga gëm kooka weddina liñ in liñ wàccee ci Muhammad léegi nag mu des nag ñu dem seeti moom lan lañ wàccee ci ci Muhammad yonent bi sallallahu alayhi wa sallam liñ liñ wàccee ci moom mooy mooy alquranul karim liñ wàccee ci moom mooy karim léegi nag képp koo xam ni da dem ci njabarkat euh, da ngaa dem ci euh, gisaane kat di ko laaj mu laaj la nga nga laaj ko mu maanaam maanaam nga laaj ko mu mu wax la bu la waxee nga dégg loolu euh, comme li yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax man ataa arrafan aw kaahinan fa saddaqahu faqad kafara bima unzila ala muhammadin euh, loolu euh, yàlla nee na ndaxte ñoom dañuy dañuy dañuy jéem a xam kumpa ñoom dañuy jéem a xam kumpa moo tax xadis bi ñëw ci ci ci euh, muslim mooy man ataa arrafan fa saalahu an cheyin salaatu arbaina layla man ataa arrafan euh, waaw man ataa arrafan koo xam ne danga nga ñëw ci gisa gisaanekat yooyu euh, naan diw mu ngi lay liggéey ak diw mu ngi lay def ne diw lii sa sa sa jëkkër dafa am lii damaa bëgg nga xoolal ma yooyu euh, ku ca dem nga laaj ko rek wante dégg xam nga ñaari xadis la bu njëkk bi mooy fa saddaqahu fa saddaqahu moom moo am ku ko def weddi nga liñ wàcce ci Muhammad beneen bi amul fa saddaqahu dafa ne man ata arrafan koo xam ne danaa ñëw ci gisaanekat yooyu koo xam ne day jéem a xam kumpa di jéem a xam euh, di jéem a xam mooy arraf nga sa nga nga laaj ko laaj bi dong laaj bi dong boo ko defee duñu nangu sa benn jul duñ ko nangooti diirub ñeent fukki guddi kon gis nga ñaari xadis la bu njëkk bi mooy mooy man ataa arrafan aw kaahinan fa saddaqahu faqad kafar ma unzila ala muhammad arraf bi te mooy gisaanekat bi euh, mooy koo xam boo ñëwee naan sama dara daa réer mu la ko jéem a xool wala mu lay pettaawal yooyu yëpp dafay dugg ci arraaf nga laaj ko di ko laaj gëm ko daa koy gëm kookee weddina la lañ wàccee ci muhammad sallallahu alayhi wa beneen bi mooy man ataa arrafan fa saalahu an cheyin maanaam ku ñëw ci gisaanekat yooyu laaj leen wante nag yow daal amul fa saddaqahu da nga leen laaj rek laaj bi nga leen laaj rek yàlla doo nangut sa julli diirub ñeent fukki guddi kon liñ bëgg leeral ci bi rek mooy danger bi am ci euh, di jéem a xam kumpa wante danger bi am danger bi nekk ci di dem ca ña nga xam ni dañuy woote kum am xam kumpa yow nga leen di laaj kon kon comme yaa ngi leen di laaj kon yow dafa mel na leen a gëm comme laaj nga leen jëmmi laaj bi rek da leen a gëm léegi nag ñu laaj la wax la nga gëm ko dëggal ko kooku euh, yonent bi nee na weddi nga alquranul karim waa yow alquranul karim bii nga weddi ñaata est-ce xam nga danger bi loo xam ni weddi alquran daf cay topp daf cay daf maanaam day war a weddi alquran loolee nit ki bu koy def war na war naa seetaat li muy def lan la mooy lan mooy dem ci dem ci buxaaba yi dem ci jabarkat jabarkat yi ndaxte boo fekk foo fekk ñaare kuy gisaane day njabarkat lay doon ñu lu ci bare bare léegi nag am na ci ñoo xam ni dañuy gisaane noonu waaye nant duñ jabar maanaam lu ci mel ne benn kuy kuy pettaaw kuy pettaaw di la wax la la lan ngay bëgg a am nee naa la arraaf ak kaahi ak ak kaahin daanaka daanaka benn lañ seen différence bariwul kuy pettaaw nga dikk mu wax la li ngay bëgg a am ak xawma laa gan bu ko defee mun la pettaaw bi li ma li ma gis de ci ah, ab saytee ngi nii nangam nangam loolu lépp ay yu bon la yoo xam ni di jéem a xam kumpa ku ca dem kon waxuma la ñoom de ñoom de ñoom moom seeni mbir seeni mbir kenn yàlla rek nga xam danger bi nekk ci ñoom seen mbir ñoom seen bopp wante yow ma ca dem rek léegi nag nag koo xam ne dem na ca xamul woon xamu ci woon dara xamul woon ni danger bi dem na rek euh, maanaam dem na ñu wax ko ko ni ko lii kat yow ndeke li xamu ko woon loolu moom insha allah mën na caa mën naa ba a dugg ci loolu euh, wante nag euh, yu mel nii bala nga caa dem dan naan la laajteel yàlla nee na fasalu ahla zikri in kuntum laa taalamuun laajteel bala ngaa dem bul ni xaw ma ci woon dara bu fekkente ne nee nga xaw ma ci woon dara ci àddina bi ñu wax la nga xam xalaas jeex na léegi nag bul ko defati nga tuub yàlla baal la wante nanguwoo laaj nanguwoo laaj nanguwoo ba dem ca yàlla du nekk lay mukk ngeen yàlla xaw ma ko woon dégg yàlla nee na fas alu ahla dikri in kuntum laa taalamun yàgg bu yàgg yàgg laajteel yàlla wax la nooy jaamoo yàlla wante laajte woo defoo dara di tëñëx tëñëx loolu génn àddina yàlla nañ ci yàlla musal kon yaakaar naa euh, lool mooy loolu mooy aaya euh, ñaari ñaari yokkal nañ la ci benn xadis wallahu aalam euh, macha allah yaa sayidi imam barakallahu fiik kon de lii de doy na waar de ñaare de moom Sénégal ku téléphone am réer sax boo dëkkee euh, benn dëkk sa téléphone réer moom da koy fa jógee pas cinquante mille dem ca dëkk yi gën a sori fekk fa ab kuñ ku ñu ne day seet nga ne ko seetal ma euh, sama dëkk laa jógee nii sama téléphone dafa réer xoolal ma ko ba xam fu mu nekk ala kulli nit ñi lañ ci bàyyi xel incha allah imam ñu ñëw ci laaj bu mujj bi ci wàllu sunna door a dugg ci troisième partie bi insha allah léegi laaj bi mooy euh, nit ki su fekkee dañu ko njabar ndax moom mën naa wax ne ah man kat roy naa sunna ndax yonentu njabaroon nañ ko léegi nag su ko defee kooku ñu njabar noonu mu dem seeti beneen njabarkat boo xam ne moo koy dindil njabar googu noonu bëgg nañoo xam daal njabar gi nga xam ne njabar nañ ko mu jeexit ci doomu aadama bi loolu naka la mën a nekke ndax mën na nekk wala déet ak su fekkee nekk na it ndax njabar ni moom mën na ko dindi wala am na beneen yoon bu mu mën a jaar pour loolu dañ barakallahu fiik salaamaaleykum cheikh jibril euh, cheikh jibril awalan euh, di layani comme yonente bi alayhi salatu wasalaam njabaroon nañ ko man tamit xam naa ni man mën nañ ma war nañ maa njabar buñ ma njabaree ma dem ci am njabarkat moom dindi euh, sama njabar yonent bi alayhi salaatu wasalaam leeroon nañ maanaam mm, demuloon ci benn njabar njabar nañ ko d'accord wante nag euh, njabarkat njabar njabar googu euh, laalul dara waxoon nañ ko fii laalul du ci xel mi du ci du ci dara lu dul ni sixru taxiil gis na yonent yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam est-ce que dégg ngeen borom xam-xam di di wax ci ci ndax njabaroo nañ ko pourtant yàlla nee na fa fa ida xibaaluhum wa isiyuhum yuxayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a dafa am njabaru taxyil ko yéen dalal na yonent yàlla Moussa fu mu taasira amul ci jeexi amul benn jeexital ci moom benn jeexital amu ko ci moom naka noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njabar njabar googu ñu defoon amul benn amul benn benn jeexital bu am ci moom dara dara dara lu dul euh, euh, taxil lu am di di imagination def na dara te def ko fekk def ko wante amul dara dara lum ci wàllu nubuwa gi laalu dara ci wàllu daawa gi alquran dara du ci dara maanaam tàqalikolu sagoom bay wax ay wax yoo xam ni tëyu ko déedéet audu billah mukk ci àdduna bi yonente maanaam yàlla jomm naag di am yonent muy mel noonu déedéet déedéet déet loolu jomm nañ leen ko ndaxte loolu kooku loolu kon day go loolu subhaanallah du nekk njabarkat mënul dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag euh, façon comme njabar googu loolu nekkul njabar njabaru dara loolu du dara loolu moom loolu du aw lay bu kenn lay ñaareel bi euh, di maanaam euh, njabar nga bëgg ko génne njabar loolu njabar loolu loolu dagan njabar ci alquran lañ koy dindee walla ci al adiya nabawiya yaa ngi dégg al ad maanaam yeneen ñaan yoo xam ne ñaan yu dagan la yéen yeneen tudd yàlla maanaam ci alquran wala ay adkaar wala ñaan yoo xam ne yoo xam ci yonent bi la jóge wala ay léema yoo xam ne yow yaa koy wax maanaam yàlla yàlla mu musal ci njabar gii loolu mën nga wax ci wolof sax amaa nag jabar nga bëgg koo dindee ci jabar loolu ak ko mënti def loolu yonent bi laaj nañ ko ko ñëw na ci saxi abi abu ah, yoon yoon ñëw na ci xadis abi daawuda muy muy xadis bu wér yonent bi alayhi salaatu wasalaam laaj nañ ko ko ñu ko ñu ko xallu si laaj loolu nushra lañ koy tuddee an nushra maanaam mi ngi tudd nushra maanaam su'ila nabiyu sallallahu alayhi wa sallam an nushrati te mooy xallu sixri بالسحر فقال صلى الله عليه وسلم هو من عمل الشيطان فقالت هو من عمل الشيطان maanaam di di dindi njabar ci njabar laaj nañ ko yonent bi yonent bi loolu ni loolu ci jëfi seytaane yi la loolu ci jëfi seytaane yi la ba pare bu fekkente ni da nga euh, maanaam njabar da nga da nga faa bàyyi turu yàlla dem di ko dindee ci njabar kon mooy kon léegi yow yàlla wóolutoo ko loolu ñàkk wóolu yàlla la subhanahu wa taala ba tax na xallu sixri bi sixri laaj nañ ko yonente bi mu ni innahu min alcheytan min amali alcheytan wa huwa min amali alcheytan dafa bokk ci jëfi seytaane yi lu bokk ci jëfi seytaane yi nag yàlla nee na yaa ayuha alladina amanu laa tattabicu xutuwaati alcheytan wa man yattabic xutuwaati alcheytani fa innahu yamuru bilfaxshaai walmunkar bil fahshaai wal munkar seytaane noonu rek la boo dikkee bëgg a dindi ñabar li ñabar seytaane yu bon dong la lay nga def ko te yàlla nee na bu leen topp yoonu seytaane kon loolu dafa araam beneen bi may waxaat yonent bi sallallahu alayhi ak njabaram bu ci kenn sukkandiku bu ci kenn sukkandiku maanaam yàllaa ko dogal ci moom qul audu bi rabbil falaq qul audu bi rabbin naas dafa ñëw ba ñaari saar yooyu ba mu wàccee ci la njabar gi dañ na dem loolu amatul yaa ngi dégg loola nag alhamdulillah yàlla subhanahu wa taala euh, génne na ci yonente bi alayhi salatu wasalaam kooku yàlla moo ci génne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag nit ko xam ne yëpp nañ dañ koo sixat dañ koo njabar xamu nu muy def na dem di jàngi alquran lu bare bare bare bare bare sut nag suuratul na koy jàng ay yoon koo xam dañ ko njabar du jàng mukk suuratul baqara ma ne juróom-ñaari yoon bala moo ak juróom-ñaari yoon yi insha allahu rabbi loola dañ ba ba fet wecci moom kenn du ko jàng ci ak njabar njabar gi di ci kont nekk loolu moom yonent bi moo ko wax yonent bi moo ne suuratul baqara fa inna axdaha baraka wa tarkaha xasra wala tastatiicuha albatala njabarkat yi ñoom mënuñu mënu mënaluñ dara suratul baqara kon suratul baqara fu mu wàcc ci bu dee njabar gum fa fekk dana ko yàq te nit ki bu fekkente ne dafa bëgg a euh, euh, muslu laata njabar gi di ñëw xamal muy def day boole ñaar gëm yàlla gëm gu wér na na bi fees dell ak gëm yàlla ba pare xolam bi tamit fees dell ak wakkiilu ci yàlla ñaar yi feeg yaa ngeeg moom seytaane du la mënal dara yàlla wax na ko ci alquran yàlla nee na innahu laysa lahu sul maanaam seytaane laysa lahu sultaanun ala alladina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluun innama sultaanuhu ala alladina yatawallawnahu walladina hum bihi mushrikuun seytaane ñan ñan la ñan la ñan la ñan la gën a man ñan maanaam dooleem fan la ko utiliser mooy ñi nga xam ne dañoo méngoo seytaane mooy lan maanaam ñi nga xam ne au lieu ñu au lieu ñu bu ñuy muslu au lieu ñu muslu ci yàlla ñaan yàlla musul waaye ñu koy jéem a dindee ci seytaane maanaam ñu koy jéem a dindee ci njabar kon léegi ñoom seytaane man na leen parce que wa innahu annahu kaana rijalu min al min al ins yauduna bi rijali min al jinni lan moo lan mooy natija bi fa zaaduhum rahaqan fa zaaduhum rahaqan hada wallahu aalam macha allah imam bala ñoo yeggal li ndéggat gi ñu ñëw nag ci part bu mujj bi insha allah imam euh, ñi nga xam ne Sénégal nit day dëkk càlle daal di fay jugee càlle mooy sama dëkk maam daal di fay jugee dem ci beneen dëkk luye fa ab néeg waaye lam fay def mooy euh, di seet di wax nit ñi ne moom daa mën a seet nit ñi di ñëw ku dem indi moroomam mu ñëw léegi di bind ay xaatim di defar ay biteel di defar ay ndox ak i sunguf nit ñi di ñëw mu di leen di seetal yaag sa jëkkër gi wala sa jabar ji am ngeen problème yaa ngi bëgg a jot benn xaalis na nga génne benn ganaar gu weex ak ñetti doomi guro ak ñaari nen booy ñëw nag ma indaaleel big ak ñetti kayit na nga jënd parfum saraxe ko na nga waxtaan ak diw sàngam imaam loolu ndax day dugg ci njabar wala déet loolu daal bëgg nañoo xam ban jàngat nga ciy def insha allah. waaw euh, façon euh, maanaam kon façon bii nga wax nit day ñëw ni la man kat damaa bëgg sama wujj wi nga mu dof mu daal na boo demee na nga rey ganaar deret ji nga fexe ba jël lenn ci ay euh, jeexitalam ci yéreem wala dàllam wala lu lu muy teg ci boppam musóoram nga nga taqal ci deret ji yaa ngi dégg jël nen def nangam jël nen def loolu lépp ay xeetu njabar la loolu lépp ay xeetu njabar la yu garaaw a sax na loolu dafa nekk ci ay maanaam taalimaat la yoo xam ne jinne yi maanaam ay ay jinne ñoo ñoo ñoo koy ñoo jinne yi ñoo koy ñoo ñooy ñooy ñooy bëgg yooyu yaa ngi dégg parce que njabar boo koy def lépp loo xam ne luy luy kontaanloo jinne la njabar boo koy def lépp loo xam ne luy kontaanloo jinne la rek yaa ngi dégg loolu mooy day day day yow lii na kontaanloo jinne rek comme mi ngi kontaanloo jinne rek loolu loo loolu mooy njabar mooy maanaam loo xam ne ak taqarrub dangay ngay jéem a maanaam yow seytaane bi nga bëgg nga bëgg nga bëgg a nga bëgg a convaincre kontaanloo ko mu kontaan ba loral la ki nga xam ne moom nga bëgg mu loral la ko léegi nag seytaane bi ni la rayal xar am na sax am na sax ñoo xam ni loolu ngay gis ne maanaam yow am loo xam ne yow dañ koy digal ki nga xam ne moom moo ñëw bëgg loolu boo demee nga rey xar boo rey xar nii nga koy rey xar mu ñuul wala xar mu benn melo wala xaru nangam bu ko defee nga boole ko ñetti nen ak ñaari sondeel léegi jëm ñaari perkaal boo demee fekk néew bu ñu soog a suul nga su fexe ba am ci na loolu lépp euh, mbirum lépp même sax bu la néewal nga bu ci tudd ay armeel waaye comme am na lu mu lay digal nga koy def rek génneel sarax waaye nii nga koy defee loola seet loolu ak njabar la ndaxte jinne ji moo ko bëggee noonu jinne ji la bëgg a defal li moo ko moo ko bëggee noonu kon yow séetatoo lu lu lu lu lu yàlla bëgg wante lu jinne ji bëgg yow moom nga moom nga moom ngay def moo tax doo gis mukk ab njabarkat njabarkat bu am mujj gu mujj gu rafet lu dul mu tuub avant muy muy génn àddina bu ca génne àddina génnin bu bon lay génn àddina te bu génnee àdduna xam nga ñuy sàng néew ñoom dañuy am sutura wante buñ la waxee lañuy buñ la waxee lañ gis te bañ koy sang wala bañ koy jullee wala bañ koy suul yu bon ngay gis ja ñoom jabarkat yi yu bon a bon ngay gis yaa ngi dégg ndaxte ñoom ak say saytaane ñooy ànd yàlla nee na wa man yaachu an dicri rahmani nuqayid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasudduunahum an alsabil wa yaxsabuuna annahum muhtadun xatta ida jaaana warsi moo naan jaaana حسن حتى إذا جاء حتى إذا جاءنا وصل حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين يلا تنتلن ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون awatul njëriñ seen werante yi ngeen def koo xam ni da ngaa dëddu alquran topp yu bon yi rek yàlla da lay boole benn seytaane xarin boo xam ni su seytaan ku bon rek nga nekk ak moom nekk ak moom nekk ak mu lay mu lay dugal ci am ay kàmb yi mu lay dugal ci ak cànkute di dugal ci ak cànkute ba ngeen ñëw nag ci yàlla boo ko defee nag bu ngeen demee ba gis safara si nag nga xam ni mbugal ay mbugal mbugal mii ci yéen la jëm si nga nga naan nga naan kii la doon sànq nga naan ko aka neexul sama digganteeg yow mel ne penku suuf ma bañ laa xam yooyu euh, yooyu yëpp maanaam mooy sababu yii maanaam euh, euh, jël benn pant jël benn pantre yaa ngi dégg loo wax ñu ñu ñu nan dem ci maaman yi nan dem ci maaman yi léegi maaman yi boo demee ñu ñu ñu ñu ñu façon lu bon lu nekk nag ñu def loola ko lu bon lu nekk ñu def loola ko léegi nag ki nga xam ni moom la moom moom la fekk si moom euh, ma ña ngi koy def loolu bon te du ko yëg maanaam moom ña ngi koy def loolu bon a bon a bon te du ko yëg lu bon léegi pour jinne ji ñëw nag dafa am noo koy noo koy noo koy noo koy nooy indee jinne ji daf ko noo koy nooy indee ni ji loolu ci juróom ñetti xaaj lay lay lay nekk an tariq al iqsaam an tariq al al iqsaam mooy loo xam ni dafay dafa mel ne maanaam euh, al iqsaam daal jabarkat bi day nekk ci benn néeg bu lëndëma lëndëm daal di taal safara yaa ngi dégg taal safara ba safara si commencé tàkk mu sotti ci ay ay ay ay ay ay ay cuuraay sopp sotti cuuraay comme ni ko jinne ji bëggee rek yaa ngi dégg sotti ci cuuraay euh, euh, bu ko defee cuuraay bu fo cuuraay bu noonu noonu lay jaarale jaarale ak jabaram bu ko defee nag buy sotti cuuraay di waxaale palaasim yi muy yu bon ya muy wax di ko di ko wax shirkiyaat yi di ko wax léegi nag bokk na ci e, ñaareelu yoon bi ñaareelu yoon muy an tariq zabx azabxu maanaam mooy lan mooy ñun la boo demee nga rey xar xaru wenn melo boo rey xar mi nga saam ko nangami saam saam bu ci nekk boo koy jox kii nga nga jox ko ko xale xale xale bu xale bu monsieur ragul bu ko defee benn e, mu am ci saam yoo xam da nga koy jox nangama na indil la ay kenn xamul loolu moo tax yàlla nee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laay wax yonent bi wax na xadis saxi muslim muy xadis ali ibn abi talib yonent bi ni sallallahu alayhi wa sallam laana allahu man zabax bi bi xayri li xayrillah yal na yàlla rëbb koo xam ne dafa rendi te booba yàlla taxul yàlla taxul njabarkat yi njabara taxa boobu yàpp eh, yàlla nañ ci yàlla eh, musal ba duñ ko sax gis wante yal na yàlla rëbb koy def la kon loolu nga laaj njabar la bu garaaw a garaaw am na ci façon jabar yi maanaam yi ngay def pour jinne ji defal la li nga bëgg mooy ab tariqatu sufliya mooy wax naa ko sànq mooy tariqa boo xam ni njabarkat bi day day day day day day e, e, maanaam njabarkat bi e, day jël téere alquran di ko def ko daal téere bi ak maanaam téere kaamil bi lay jël kaamil bi ci boppam lay jël def ko dàll dàll yu muy dàll yu muy sol di ko duggee ci biir douche bi ak di ñëw loolu jinne ji moo ko bëggee noonu bokk na ci am tari tariqa tariqatu najaasa tariqatu najaasa mooy lan mooy day day jël waxoon naa ko sànq day jël euh, mbaaxu jigéen di ci bind di ci bind alquran karim bokk na tariqatu tankiis li naan ak tankiis mooy lan tariqatu tankiis mooy lu mel la jël suuratu yaasin di jàng ko wala ab saar rek ci alquran au lieu nga jàng ko ni ko yàlla wàcce waaye nga commencé nga juutal ko nga juutal ko ci jàng loolu lañuy wax tankis loolu xeet la ci xeetu njabar yi bokk na ci xeetu njabar yi li ngay def pour njabar mooy ak tanjim tanjim mooy lan di xaar ba am benn biddéew bu jóg biddéew bi boo ñëwee di di wax ak biddéew bi di am looy wax ci ci affaire ci ay ci ay parasim yu bon a bon ay kalimaat shirkiya yoo xam ne ay shirk la di wax ak bi bu ko defee ngay wane ay xarakaat di wane ay xarakaat yoo xam ni lépp pour bëgg a kontaan loo jinne ji mu defal li nga bëgg am na nja am na njabar boo xam ne lu ñu tuddee tariq tariqatul kaf tariqatul kaf bi bi nag euh, tariqa bi nag man bi ma bi ma dee xale essayé woon nañ ko ci man njàpp loolu nag booba maa ngi woon booba euh, sama wayjur daf maa joxe woon ab ab ab daara boo xam ne xamu ci xam joxe na ma rek benn benn sëriñ euh, mu ma doon jàngal sëriñ bi euh, booba xam nga ñoom dañ lay def dañ lay def loolu loo xam duñ ko yëgal seen wayjur maanaam dañuy jël benn xale bu ndaw xale boo xam ne majeuragul xamu xamu sax affaire ay ay jigéen ak yu mel noonu ku majeuragul la jël buñ ko jëlee. fekk xale bi ku xale bi euh, euh, du du jàpp maanaam xale bi du jàpp ñu jël loxoon càmmoñ bi daal ci bind euh, benn benn carré man nag daawuñ jël loxo ci ci ci ci lañ ko daan def benn nga def ko ci loxo ndaje loxo loxo xale mooy alkaf moom la wax tariqatul alkaf mooy tenk sa ci bi lañuy ñuy def la def Euh, carré boobu euh, def ay palaasim ak ay xaatim ci digg bi bu ko defee nag ñu def mu def benn tomb tomb boo xam dañ cay def parfum loolu bu ko defee nag euh, xale bi mu am nga xam léegi dañ dañ koy dañuy jël ñu daal di muur xale bi am luñ luñ ko muuree loo xam ni dañ koy muur ba foofu lëndëm këriis nga xam dañ lëndëm bu ko defee xale bi mel ne am lu muy imaginer mel na am lu muy gis yaa ngi dégg loolu njabar lay doon xale bi mel la am lu muy gis loolu loolu mooy njabaru euh, bu ko fee xale bi nag di wax ak kooku xale bi du gis dara wante lënd euh, lëndëmaay gi moo tax xale bi mel na kuy kuy kuy imaginer kuy gis moo kuy gis leer mu ko loolu def nañ def nañ ma ko bi ma nekk xale bu ndaw ndaw boobu xam na ñoom woy jee duñ xam dara bokk na tariqatul asar mooy lan mooy buñ lay njabar ni indi indil lenn ci mbaxaneem wala indi yéreem wala indi dàllam indi mbaxaneem indi nangam ca loolu lay def njabar gi kon juróom-ñetti turuq yi lii lépp euh, xeet la ci xeetu njabar yi yaakaar naa euh, Cheikh Jibril euh, yokkal naa ci yeen yu baree bare bare kon loolu nga laaj ah, njabaru sihrun bi aynihi jëmmi njabar dëgg mooy loolu maanaam loolu xaaj la ci xaaj njabar yi wallahu aalam macha allah barakallahu fiika ah, am na solo de xam naa ne ndéggal lii de indaale na laaj yu bëri sax yu ma waroon laaj am na solo lool de yaa imam ah, laaj bi di ci toppaat imam ah, ki nga xam ne nag moom ab seetkat la mu daal toog ci ab ruqam bu yaatu mën naa am sax muy wër tele yi walla rajo yi wala uh, whatsapp yi wala facebook yi wala fu mel daal léegi nag moom ñu indil ko kenn kooka ñu ko andil ma ngay yuuxu uh, biñ ko andee ba ci moom mu daal di koy jàpp nag daal di koy sukkal ci kanamam daal di koy tiim ne ko di wax ak moom mu ne ko man daal uh, ab damu laa man maa la jàpp maa la lekk maa la liggéey maa la def ndàngam léegi nag waa jooju nag seetkat boobu ne ko léegi jël leen ko ngeen yóbbu ko ca dammati kuur yële ak tojati ndaa yi ngeen sotti ko soow raxas ay tànkam ak boppam indilaat ma ko indil ma ndox mi waaw ah, loolu moom ndax sharia nangu na ko walla ndoolu ndax imaam am na ab jàngat bu mu ciy def insha allah su ko defee ñu desee benn laaj daal di lay yëkkati ba beneen yoon insha allah barakallahu fiik Euh, waaw euh, Cheikh Jibril loolu maanaam waa ji comme ni nga ni nga waxee ni loolu xam xamb la euh, dafa feebar nga indi ko ci benn waay li lieu jàngal ko alquran te kët waa ji def loolu naan demal nga ca njaq yee nga nga nga sotti ko soow sotti ko lii sotti ko laa kooku ansaab la kooku dafa bokk ci ansaab yi yàlla nee na innamal xamru wal maysiru wal ansaabu mooy yooyu ñuy samp maanaam yooyu ñuy samp njaq yooyu ñuy samp ak dañ koy samp boo xool dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy dañ def samp ko mu mu mu nekk mu xóot def jaan dafay nekk dafay nekk yaa ngi dégg ak yeneen ak yeneen bu ko defee ñu ñu ñu ñu la fay foofu la ñuy soow loolu lépp palaasu jinne yi la palaasu dafa bokk ci Eh, eh, palaasu sayatin yi lu leer naññ sax kooku kooku ci sixir kooku mu yàllaa ko wax ci alquran innama alxamru walmaysiru wal ansaabu ansaab mooy xamb yooyu wal azlam al azlam mooy eh, di def gisaane loo xam da nga koy def jël benn njaq ay njaq njaq fii ak njaq fii bu ko defee nga daal di nga fii nga def ci dinaa dem maanaam nga yàllaa ma tere fii nga ni seytaani ma digal nga jël lool nag nga nga nga ciy def nga ngay génnee boo génnee bi jaxase am looy def lu génn bu génnee yow nga jax am noo ko jaxase bu ko defee nga seet bu génn boo génn nga xool ban mooy génn bu génnee yàlla tere na tere na du ma dem seytaane digal na ma naa dem yooyu al azlam la loolu lépp dafa bokk ci xeetu njabar ndaxte nee naa la loolu gis nga mbirum xàmb yooyu nga xam ni foofu la ñuy euh, sàngate nit ñi di sotti la soow defal la lii defal la laa defal la yu bon yu nañ defal la wala seytaane seytaane kooku min amaa kii soyaate palaas seytaane yi nga xam yooyu lañ bëgg yooyu lañ bëgg loolu lépp kooku euh, naw la façon la xaaj la ci xaaju euh, njabar yi yàlla yàlla mos a ciwee xam la yoo xam ne moom loolu mu alquran da ko wax mu leer nañ loolu njaamum xërëm la ndaxte yow léegi kii nga gëm ni moom moo lay moo lay moo lay moo lay faj moom li yàlla moom wóolootoo ko yàlla wóolootoo ko yow yaa ngi wax waxi euh, nan ngay def ba ba ba ba faju wante ci ci biir xamb yi ci biir am saab yi ngay ngay fexe num fajo loolu lépp dara taganu ci wallahu aalam barakallahu fiika yaa imaam yal na yàlla barkeel insha laaj bu mujj bi imaam léegi ki nga xam ne nag moom dafa toog ci ab ruqam waaye moom nee na day seet li mu seetee nag mooy nit day ñëw mu ne ko da dama lay fanaanoo maanaam daal li nga bëgg rek ma koy wax ma fanaanoo la bu subaa boo ñëwee ma wax la say mbir walla kenn ñëw sax mu ne ko léegi man damay seet wax ma li nga soxla nga dem toog fële trente minutes nga may ma soo ñëwee ma wax la nangam ak nangam nga fay ma nga dem ñibbi loolu it bëggoon nañoo xam naka la ko imaam gisee mu nekk laaj bu mujj bi insha allah barakallahu fiik barakallahu fiik euh, Cheikh Jibril loolu day bokk ci xeetu xeetu njabar yi xeetu njabar yi maanaam euh, xeetu njabar yi boobu moom dafa leer nañ ñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam Euh, wax na ko mooy xadis bi ma bi ma xam ne wax naa ko waxati ko mooy man ata arrafan euh, fa saalahu an cheyin euh, lam tuqbal lahu salaatu arbain am am beneen bi man man ata kaahinan aw arrafan fa saddaqahu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mooy loolu nga xam ne da ngay ñëw mu ni la ñëwal ma fay ma ma defal ma defaral la bu ko defee wala mu wax la loolu lépp mu wax la sa wërsëg wala loolu lépp ay ay ay xeetu njabar la am na nag ñoo xam ni ñoom da ñëw ñu njabaral la nga fay leen ñu njabaral la am ñoo xam da ngay ñëw njabaral la du caage ni da leen di laaj wante dañ dañ lay njabaral njabaral gi nag dañ lay jéem a maanaam benn benn nga nga njabaral gi mooy yow yaay seet noo ko bëggee ndax da ngaa bëgg am koo njabar wala dafa am kuñ jabar nga bëgg koo dindi yu noonu nga jël sa mbokk indi loolu lépp dafa bokk ci xeetu njabar yi man dama leen di nettali am na benn njabarkat bu bu buñ xamoon euh, ci ci ci Sénégal googu euh, mës naa mës naa ànd ak moom fekk mës naa pour pour pour wane am ñu ma àndal man leen kii léppam ay fen la day fen rek ma daal di ànd ak moom ma daal di ànd ak man leen kaay ma wan ma ma leen ma wan leen kii ab arraf la ab la ma ni ko sëñ bi man de dañoo dañoo sàcc sama nàngam arraf daa bis bu nekk rek moom mooy ki nga xam ne moom mooy wax liñ sàcc wala la réer fan la nekk kooku arraf la ma ñëw ci moom ni ko daf fekk booba sama ma jël sama sama sama kaamil alquran de fekk ma ni dañoo sàcc sama kaamil ak sama jamono jamono jooju rajo woo wo man moo amoon ma de ñaar yëpp ma denc ko sama almoor ma ni ko dañ koo sàcc mu ne ma waaw léegi bu subaa ci fajar ñëw leen ci suba ci suba sañu ñëw ma laaj ko mu ni ma mu ni ma yow sa sa sa sa téere ba ak sa rajo bi ka ko sàcc nangam ak nangam ak ma mel ki ko sàcc ma nga jëm dëkk bu am ndox jël na ko ma nga jëm dëkk bu am ndox wax ma lépp ni mu demee te fekk dara sàcc ñu dara lépp a nga sama kër naka noonu lépp pour wan mën leen gis ngeen pour wan leen pour wane ni lii dara dara du ci dëgg loolu mooy problème bi da ngay ñëw laaj laaj la loo xam nga laaj leen loo xam laaj ixtibaar yooyu nag bokkul ak nga ñëw di laaj ci loo xam ne da ngaa bëgg a xam loolu bokkul euh, ñu wax la kan moo ko sàcc wala yu mel noonu loolu Euh, bokkul kii da kii moom ba ngay dem xam nga ni dara amu ci lépp ay ay nar la ak ay caaxaan wante ñi nga àndal nga bëgg nga leen nga leen bëgg nga bëgg wan leen moom ak caaxaanam loolu def naa ko ñaari nit am na keneen koo xam ni dama dikk ni ko man de sama kalpe moo réer ma bëgg nga seetal ma ko mu toog ay fan ma ma laajaat ko mun ma sa kalpe bi euh, nit moo la topp ngay dox di dox ba yàgg mu te ba may wax loolu sama calvin sama poche nit moo topp ba nga am foo ko teg mu jël ko dem dana ko indi nag wante jël na ko dem yaa ngi dégg fekk loolu dara amu ci euh, dara amu ci yàlla nee na qul laa man fi samawati wal ardi al ghayba illa allah loolu nañ ko xam te noppalu kumpa yàllaa ko xam mu jeex takk yaa ngi dégg yàllaa ko xam mu jeex takk njabarkat yi nag njabarkat yi nag buñ xamoon li leen yàlla di dencal njabarkat yi buñ xamoon li leen yàlla di dencal yàlla nee na wa laqad alimu laman ishtaraahu maa lahu fi l min xalaaq wala bisa ma sharaw bihi anfusahum law kaanu yaalamun yàlla ŋàññi na leen tëkku na leen ba pare ŋàññi leen yowma alqiyaamati moom moom dara duñ ko duñ fa am dara lu dul ay mbugal ak ay duma ak ay safara dong lañ am ay safara dong moom la am ñoo fa nekk parce que ñoom ak seytaane la yàlla ne la fa wa rabbika lanaxsurannahum wasayatina summa lanuxdirna lanuxdirannahum xawla jahannama jisiyan yéeféeri say seytaane yi seytaane yi nag ñoom ak ña àndoon ak ñoom ñëpp la yàlla boole du dugal dugal ci biir jahannam kon nañ ci bàyyi xel njabar Euh, ak laxeetoog moom yoonu seytaane la te yàlla def ñu ko tere kon euh, Cheikh Jibril loolu lépp euh, maanaam ay mbir la yoo xam ni ku ci tóobul ba génne ko àddina moom ku ne xam na li la ci fekk mooy ni kenn kenn kenn mënu laa ñaanal mënut laa maanaam nit mënut laa ñaanal ci kaw suuf si ba duñ la duma kenn kenn nag mënu ko nit mënu laa ñaanalate ba duñ la duma ci kaw suuf si yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla musal nit mënatu ñaanal maanaam diw dee na njabarkat bi deena na déedéet kooku moom euh, jeex na kenn du ko amul ku maanaam ñaan moom jëru jëru ngay sonn di ko ñaanalati safara la jëm direct yàlla nañ ci yàlla moo tax ñii di ubbi seen ay pantere wala sax même bu ñu ubbi seen pantere ñu seen kër yi di recevoir ay nit di leen jabaral nañu ragal yàlla te xam ni bu ñu ca deewee dana nekk seen bàmmeel lool lool njabarkat bokk na ci euh, euh, liy waral euh, mbugalu bàmmeel njabarkat ci bàmmeel bi lay commencé ndaxte asixru kufru dégg nga wa maa yuallimaani min ahadin xatta yaquula innama nahnu fitnatun fala di ko jàng donc ñun la fala takfur bul bul weddi yàlla ñu euh, wan dëgg may ñu euh, xéewal ñu top ñu topp dëgg googu ñu ngi leen di gërëm leen sant bu fekkente ne laaj bi mooy laaj mujj bi euh, Cheikh Jibril wallahu aalam